xamal na ma ne may na ma lu mu bañul kenn waaw ndax kër gii wax dëgg yàlla am na oyof ak soldaalam ñëw fii ñëwati fi te sama jëm ju yemamaay rekk tax koo jóg benn soxla àddina du ko tax a jóg. ay doom yi bàyyi lañ suñuy bàyyi ñoo àndoon suñuy maam ànd. suñu maamaat ànd limala ma la wax Mor Anta Sali sëriñ Bamba sëriñ Basiiru moom kadalika alaaji Abdoulaye Niass Khalifa Niass mi mu jur ak man mii lu ñu doon nante la yeneen nag door cee dugg ndax yor na soxna soo xam ne moo sëncoon kër gii nga toog tey muy doom ci moom ndax doom yi sëriñ max Mahmoudan xarit loo mu sëñ mu Moustapha waaw kooku ku mu jur rek sëñ Mountakha moo la jur mu yàlla def ko ci kër gi fukki at ak benn ba ni mu yujjee boromam ak yeneen yu bari yu ci dox waaw euh, sama diggante ak magam yooyu ma tudd muy sëriñ Moustapha Bassirou muy sëriñ Moussa Bassirou nga xam ne moom lañ tuddee sëñ Moussa naawel moomu euh, baayam tuddee ko rakam ju baax jooju di sëñ Moussa waaw kon nag ñun euh, zuriyatun baadoha baax baadin euh, yàlla daf ñoo def ñuy ñu tedd nuyu di leen encouragé ci liggéey bi nga xam ne yéen a koy def di leeralal askan wi tey ngeen ñëwoon pour ñu waxtaan ci li ñu xam ci Cheikh Mbàkke xalifatul am li taifatul muridiya ni ñu koy waxe euh, Cheikh Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir Mbàkke ibnu Xaadimu Rasul euh, noonu lañu ko xamee mu nekk doomu Sëriñ Mouhamadul Bachir Mbàkke euh, Mouhamadul Bachir Mbàkke nekk doomu Xaadimu Rasul sallallahu alayhi wa Euh, mu nekk tey xalifa général des Mourides ci ni ñu ko yàgg gisee bi euh, sëriñ Sidi Maxtaar Mbàkke euh, làqutoo biñ ciy def waxtaan fii doon naa wax ne ci li ñu gis ci moom day dafa tarbiyu xalifa yi nga xam ne ñoom ñëpp ñooy xalifa sëriñ Touba yi daf leen tarbiyu nekk ak taalibe gis ko ci ak modestie gis ko ci ku ne mu jox la cër euh, way juróom nekk poroxaan sëriñ Mouhamadul Bachir Mbacke doomu Xaadimu Rasul moom poroxaan la féete nekk du ko bari xam-xam ndax li ñuy wax constitution mouride mooy Minanu Baaxil Xadim téere boobu Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke moo ko bind mooy way juru sëriñ Muntaxa mi tey nga xam ne li aju ci Serigne Touba ak jaar-jaaram yépp mu ngi ci téere boobu mu nekk nit koo xam ne nit ku am xam-xam la nekk itam nit ku ñàkk caaxaan la ci niñ ko xamee nit ku nit ku tegu ci siraatul mustaqim la Mouhamadul Mountakha euh, di xalif général di murit te tur wi mu bëgg ñu di ko ko wooye mooy euh, ki nga xam ne euh, mooy serviteur di serviteur du prophète mi ngi gane àdduna ci 1933 euh, am na ñu wax 1934 ci dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam Kayal ci wetu Mbàkke Bawal muy dëkk boo xam ne waajuram Cheikh Mahamadul Bachir moo ko sancoon euh, ma def foofu benn parenthèse Cheikh Mahamadul Bachir doomi Serigne Touba joo xam ne mi ngi gane àdduna bi Serigne bi dem ci géej gi biñ ko condamné euh, ne dañ koy exiler ci Saint-Louis ba mu dem Gabon ci weer yu njëkk yooyu rek ci la Cheikh Mamadou Bachir gane àdduna nga xam ne mbiram dafa lënkaloo ak mbirum euh, départ en exil du Cheikh nga xam ne mooy célébré màggalu Touba gi euh, kon kooku mooy wayjuru Cheikh Mamadou Muntaxa kon ni ma ko waxee mi ngi gane àdduna ci dëkk boobu euh, wayjuram wu góor wax naa leen ko wayjuram wu jigéen di soxna bint Jaxate nekkoon doom ci mu alaaji Malick boo xam ne ñu ngi koy wooye maam ma xujje faafaal jaxate euh, kooku kon soxna Binta jaxate moomu euh, moo meññi Serigne Mountakha euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha nag mi ngi jànge dale alxuraan ci bi muy am juróomi at ci dëkk boobu mu gënee àdduna di Daaru Salaam Kayal waaye bi mu fa jàngee tuuti ci lañ ko yóbbu Touba Mbul muy dëkk beneen dëkk boo xam ne waajuram Serigne Bassirou moo ko sanc moom it euh, fa la jànge alxuraan waaye mu ginnaaw bi ñu yóbbu ko Jurbel ci jàngalekat bu mag boobu di Serigne Mor mbay Cissé foofu la jànge alxuraan ba mokkal alxuraan euh, dellu ci waajuram Touba Mbul euh, mu yóbbu jox ko sëriñ Abibu Mbàkke mu di fa jàng xam-xamu diine ak langue arabe ak lépp lu ci aju xam ngeen ne Serigne Abibu Euh, érudit la bu mag boo xam ne bari na ñoo xam ne élite yi ci yoonu murit yëpp daanaka moo leen jàngal ba ci doomi Serigne Touba yi Serigne Abdou Lahad Serigne Saliou Serigne Chouaïbou ñooñu ñëpp moo leen jàngal kon kooku moo jàngal itam Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, ci Touba Mbul euh, ginnaaw bi ci 1953 la ànd ak mbokkam ma sëriñ Moustapha Serigne Serigne Moustapha mu Serigne Ndaam Abdourahmane Lo dem Mauritanie àggale fa njàngam. Euh, ci ci ci ci gànnaar euh, ba mu fa jàngee ba euh, sori ci njàngam mu ñibbisi senegal waaye ràññeeku lool ci bëgg xam-xam ak gëstu ak lecture ndax ku bëgg téere la ku bëggoon liir la ba léegi sax kon nag loolu moo tax mu mën a géeju ci xam-xam yu baree bari muy xam-xamu diine waaye xam-xamu àdduna ndax bari na loo xam ne xam-xam xam-xamu àdduna rek exemple bi may joxe rek mooy lu mel ni xam-xamu diplomatie ak yu demee noonu yooyu yëpp euh, gëstu boppam tax na mu xam ci lu baree baree bari kon nag kooku mooy euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha ak njàngam mu ràññeeku lool nag ci euh, ñaari anam anam gu njëkk gi mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha ku. kon Cheikh Mouhamadul Mountakha ku nangu kilifteef la naka jekk kilifaam di man sama waajur Serigne Moustapha Bassirou. Euh, euh, nga xam ne ñoom ñaar ñu bokk lépp euh, naka jekk jàppewu ko woon mag waaye kilifa sëriñ la ko jàppe woon naka jekk nga xam ne dafa nekkoon ci ndigalam lu mu ko digal mu def lu mu ko tere mu bàyyi nga xam ne dëkk bu muy dem sax da koy tàggu mu bàyyi mu so mu so caatam kon kon ku ku yàgg na kilifteef la te loolu moo feeñ ba ci bi sëriñ Baara nekk xalif général des mourides mu def ko jëwriñ mu ràññeeku lool ci euh, nangul bu mu ko nangul sëriñ Sidi Mokhtar mi fi jóge itam daaw euh, nekkoon xalif général di Mouride moom it mu ràññeeku lool ci wetam nekk jëwriñam déggal ko lool itam euh, te loolu ñëpp xam ko kon ku ràññeeku ci nangu nangu kilifteef la waaye nag ay kilifaam naka jekk am na fu ñu ko teg te misaal bi ma ci joxe rek mooy sëriñ Saliou ku jege woon la Serigne Mountakha ku jege woon Serigne Saliou lu ku ko Serigne Saliou daf ko doyloo woon ba bi fi rakkam Cheikh Mahamadou Mourtada euh, di caatam Serigne Touba euh, génnee àdduna moom la euh, digal ne na ko jullee sëñ Saliou moom sax bi mu génnee àdduna sëñ Mountakha moo ko jullee kon kóolute googu ko kilifaam yi wóolu woon lu lu ràññeeku lool la ci ci ci ci sëriñ Mountakha ba ci sëriñ Mourtala moom mu tudd léegi tudde na sëriñ Mountakha doom te lu lu raar la lu jafe nga gis wayjur di tuddee doomam di ko tuddeewaat doom nga xam ne kon euh, sëñ Mourtala sëñ Mourtala wóolu woon na Cheikh Mamadou Mountakha ba tuddee ko doomam waaye ba jox ko ay doomam du ñett ci ñoom mu yar kon nag kooku euh, te bi muy tuddee sëñ Mountakha doom daf ne ko dama lay dama la ko tuddee ngir mu roy mu jël ci yow ay jikko kon nag loolu dafay wane ne doomi Serigne Touba yi naka jëkk dañoo nawoon Serigne Mountakha ci ay jikkoom. ba tax ñu di ko tuddee euh, tuddee doom te exemple Serigne Mourtala euh, exemple la ci